sëriñ Abdul Karim Mbacke xalifab sëriñ ab sëriñ Abdul Karim Mbacke Mbacke Bari moom sëriñ Abdou Aziz Baara sëriñ Moustapha Mbacke jëwriñ Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ak mboolem njaboot Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke gépp mbokk yi ci kilifteefu sëriñ Modou Baara moom sëriñ Xaadim Modou Baara ak njaboot sëriñ Xaadim Modou Baara gépp waaye ak njabootu sëriñ Modou Baara moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke ci njiital soxna Xaadim Mbacke Dendey mbokk yi ñooy ànd leen fàttali bis bi nga xamante nii dañ koy amal at mu jot muy bisub Serigne Modou Baara ak doom ju baax ji Serigne Khadim Modou Baara ren jii nag mi ngi dëppoog samedi le 20 avril di fukki fan ak benn ci aw korité ñu ci woo mbokki jullit di ci woo mbokki taalibe xarit yi wala ri dëkkandoo bàyyi wuñ kenn di ci soñ mbooleem daayira ayu ci kër gi di ci soñ mbooleem daayira yi nga xam ne ñooy turandooy sëñ Modou Baara yi ak daayira yi turandooy sëñ Khadim Modou Baara waaye di ci soñ soxna Xuja Jóob mi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci kër gi di mu nga xam ne mooy ni moom mooy sëriñ Moodu Baar ak sëriñ Cheikh Baara Lahat mi wax turu kilifa yi su noppee ñu déglu sëriñ ci turu sëriñ Moodu muy woote ci bis bu am solo boobu kon mbokki bis baa ngi noonu fukki fan ak benn lay doon ci aw korité lëppoog samedi le 20 avril ñi ci woo ñëpp bàyyi wuñ kenn muy màggalu sëriñ Modou Baar ak doom yu baax ci sëriñ Xaadim Modou Baar fii ci kon sëriñ Cheikh ñaan képp koo xam ne yaa ngi ñëwit liggéey bañ leen doon soññi Mbàkke Kajoor kenn ku nee na si def xelam buy ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di bi ñu daan soññee muy bis bu sëriñ Modou Baara euh, ak euh, wajuróom doomam ju baax ji muy sëriñ Xaadim Modou Baara fukki fan ak benn ci koor wi di soññi mboolem ñam ci ñoo aju ci daayira bi yëpp Euh, tàmbale ko sëriñ Xaadim Silmantu mooy jëwrin ji ak euh, mboolem organisateurs yi sëñ Mbàkke Sow mi leen jiite ak euh, waa culture ñoor njàngum kaamil mi ñoom ñu ngi leen di soññ bu baax di soññ soxna Njóoba Mbàkke ak mboolem ñi am te ñoom lay àndal ci liggéey bi ci soxna yi ñoom soxna Faama Jóob ak ñoom soxna Faal ma Faal ñeneen ñi ci ñëpp di soññ it mboolem daayira am te ñoo aju ci tey sur Asir yëpp moo xam muy bi nekk tey sur Asir wala bi nekk Daaru Moxti wala bi nekk Colom wala bi nekk Dakar wala Njóobeen ba ngumba ñoom ñëpp ñu ngi leen soññ ñu ngi soññ it mboolem ñoom te ñoo nekk ci bitim réew diaspora bi bàyyiwuñ kenn bu ñu waxee Italie ak Espagne ak France ak Amérique nañ yu bàyyi réew yi ñu ngi soññi ñëpp bàyyiwuñ kenn di soññi képp koo xamante ni suñu xaadim sa wëllëre wala muy sa xarit wala mu jaral la jóg wala sëriñ Cheikh Ahmadou Hafiz eh, nga bëgg ci aw yëwam na nga teew ci bisam bi ñoo ngi soññi ñëpp kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi soññi fédération Saadatul Abrar Eh, ci njiital sëriñ Mbaye Seck ak sunu wàllu Mbàkke ak mboolem daayira yi nekk Gimini yëpp buntu kër sëriñ Baara yëpp eh, di ci gën a ràññëb soññe ne muy daayira eh, sant Abdoulaye bu nga xam te moo nekk kër sëriñ ba moom sëriñ Abdou Khadim ak mboolem daayira yi am ci ñoo ci kër yëpp muy kër sëriñ Abdou Karim ak yeneen daayira yëpp mun maa lim ñëpp waaye ñoom ñëpp daa mu tuddee sant Abdoulaye yu baale nañ leen ñu ngi soññu ñëpp ci ndigal sëriñ Cheikh Baara asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi yëkkati sunuy kàddu ci turu daayira bi nga xam ne moo lëkkale mboolem sëti Cheikh Mouhamadou Baara yi ci bis bi nga xam ne dañ ci fàttaliku ak a ñaanal sunu maam ju baax jooji di sëriñ du Baara di taawub Cheikh Mouhamadou Lamine Ba waaye ak doomam ju baax ja sëriñ Xaadim du Baara ren ji mu war a nekk samedi di di ñaar fukki fan ci mois de avril fii ci Touba Guy Mbind eh, daayira bi itam ñu baaxoo woon ci at mu nekk ab waxtaan woo xam ne dañ koy amal ci bisu màggal gi di ko ànd ak itam daayira tey juron azur bi nga xam ne ñooy daayira kër gi ñu koy fàttali ñëpp euh, ñu ñuy wax ne waxtaan wi itam nañ ko defee woon daaw rek lañ ko fas yéenee defee incha allah mooy bisu màggal gi bu ñu jullee gee ba pare sëriñ bi dina génn ci baas bi ànd ak mbokki taalibe yeeg mboolem mbokk yeeg wëllëre yi bu ko defee ñu waxtaan ak ñoom yeewi leen ba déwén incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu mbokk jullit yépp te di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi nga xam ni njëggala ngi ci yërmande ngi jot sa bopp ci sawaraa ci muy weer woo xam ne weeru suñu borom ngir alxuraan weer wi mooy mooy anniversaire kon ñoo ngi ci ndokkeel jullit ñépp di nuyu Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te noonu naka noonu Cheikh Mouhamadoul Moukhtar naka noonu Serigne Moustapha mi nga xam ci turam la ñu wax di ko mu yàgg fi moomit eh, di woote bis boo xam ne xam nañ ni du bis bu kenn di fàtte ndax ki ñu koy wooteel kenn daw dawul fàtte kenn muy sëriñ Xaadim Modou Baara eh, ak sëriñ Modou Baara ndax sëriñ euh, Modou Bara mi ñu defal bis bi ak sëriñ Xaadim Modou Bara mi ñu koy defal bis bi kenn ku nekk mën nañu wax ne am na miracle moo xam ne feeñ na ci yow ndax sëñ Modou Bara sëñ Bara magul ci njabootu sëñ Touba waaye jot naa ne euh, doom ju bu góor bi mag ci ci ci ci ci ku doom doomi sëñ Touba jur mooy sëñ Modou Bara te magut ci doomi sëñ Touba kon loolu miracle la sëñ Xaadim Modou Bara it mel na moom la sëñ moodu Bara amoon ci doom ju góor kon loolu meneen miracle la kon ñooñu seen bis bis la boo xam ne bisu njabootu sëñ Baara yëpp la de waaye bisu njabootu sëñ Touba yëpp la waaye bisu jullit ñëpp la eh, sëñ Xaadim nag nekkoon nit koo xam ne moom lañu ñu jamonoon teel moom lañ xam ku amoon njëriñ ci nit ñi la ku ku woyofoon toyy la itam ku bëggoon nit ñi la ku faale woon nit ñi la ku bëggoon lu baax la itam ku yaatu woon la itam ndax li la ci jox firnde mooy di dundu tànn sa bés moom rek moo ko mës a def ndax sëñ Xaadim dafa toog ba mu yàgg alxames ju jot mu woote ñu seet génn kilifa goo xam ne dafa dëddu ñu jàngal ko ay kaamil ñaanal ko dem ca ka ka ko fi nekkal ci njabootam wax ko ko mu di ko def di ko def ba def ko kilifa yu baree bari ci ci daara kaamil bi mu tabaxoon ci biir kër gi. yàlla def bis bi nga xam ne ci lay wàcc liggéey mooy bis boobu mu daan wootee di alxames ji ñuy jàng ca yoor ca ca tisbaar bañ tolloo ci añ ci la wàcc liggéey ci bis boobu kon ko kenn ku nekk xam na ne wutoon na bisam te bokkoon ko itam ak ak ak ak bokki boppam yi nga xam ne ay kilifa lañu te jiitu ko mu wutoon bisam boole ko ak ñoom bis boobu nag moom lañu woote tey jii alxuraan dañ ca daan jàng ñaan yañ ca daan def kilifa yañ ko daan defal képp ku ci teew rek ñoo ngi ñaan loole nga jot eh, ñu ngi koy woote ñu ngi koy woote ci turu sëñ Moustapha sëñ Moustapha di wax ni mboolem ñi nga xam ne njabootu sëñ Baara lañ mboolem ñi nga xam ne njabootu sëñ Touba lañ ñi nga xam ne ay julli lañ ñoom ñëpp mu ngi leen di woo ci ci bis bii nga xam ne sëriñ Modou Baara mi nga xam ne moo fi toogal sëriñ Xaarim ak mboolem rakkam yi topp ci moom di di di di di ñoom ñi di sëñ Asim mi di sëñ Cheikh di di sëñ Abdou Karim di di ñoom di sëñ lemin di ñoom ñëpp ñu nekk ca gannaawam ànd ak moom woote bis bii ndax kenn dafa amul lu gën a kowe yàlla jox la njaboot am na ko bëgg njaboot mënu ko am yow yàlla jox la njaboot nga mën ko am nga jàngal leen am na ko am njaboot te jàngalu leen nga yar leen am na ko am njaboot te yaru leen nga won leen ginnaaw ñu wëlbatiku di la ñaanal te ñaan mooy ngànnaayal jullit jullit amul beneen ngànnaay bu gën a rëy ñaan kële jiitu ji soxla na ñaan ka fi toog soxla na ñaan kon yar sa njaboot jàngal leen tërbiyee leen ba ba won leen ginnaaw ñu woote jullit ñëpp dajaloo ñaan bis ba jullit ñi dajaloo képp amaana am na ci jullit boo xam ne bu teewee ca jitaay ba ñu jéggal ña fa nekk kon nag loolu yërmande la joo xam ne ak ak njàmbaar la ci sëñ xaari waaye njàmbaar la itam ci njaboot gi nga xam ne dañ fee bàyyi gannaawam ñu jóg taxawal ko bis bii kon ñoo ngi ciy woo ñëpp bàyyi wuñ kenn di ñaan képp ku teew ci bis bii ñoo ngi ñaan sëñ sëñ Modou Baara day musta wax lu fanaan àll sëñ Xaalib musta wax lu fanaan àll sëñ Baara mañ jóge musta wax lu fanaan àll kon ñoo ngi ñaan ci daraje ñoo ñi ku teew ci bis bii suñu borom faj sa aajo asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. yéen mbokki jullit ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew. ñi ngi leen di nuyu nuyoo lislaam te moo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gisee njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gépp daje ci benn ëtt ci ëtt Cheikh Mouhamadou Lamine muy kër sëriñ Modou baara Mbacké sëriñ moodu baara di taawub Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci ay doomam di taawub Cheikh Ahmadou Bamba ci ay sëtam gane àdduna 1910 ca Sanosi bis boobu moo dëgmal si nu di ko fàttaliku fii ci Touba Guy Mbind ak ci àdduna bi yëpp sëriñ Modou Baara mi fi nekkal sëriñ Xaadim Modou Baara nekk ci bopp njabootu sëriñ Xaadim ànd ko njabootu Cheikh Mamadou Lamine Baara njabootu sëñ gépp di ko woote di fàttaliku sunu maam ju màgg jooju nga xam ni sëñ Tuubaa dafa sotti ko ci moom ba léppam di moom ci biir bis boobu itam ñu dëxañ ci bisub jàmbaari lislaam koo xam ne ni ko sëriñ Cheikh Bara Abdou Lahad waxee léegi lépp lu jamono soxla ci référence daje na ci moom ci jom ci ngor ci fit ci woyof ci nangoo liggéey akuk taalibe gu raxul dara te loolu mooy liy defar àdduna mooy liy defar àllaaxira yooyu moo wax nag dafa daje woon ci sëñ Xaadim Moodu Baara li muy doon doon doon boroomu cër jëkk a wuutu Cheikh Mouhamadul Hafiz di sëriñ Baara euh, di sëñ Moodu Baara sëñ Moodu Baara jëkk a wuutu sëñ Baara di moom sëñ Moodu Baara di taaw bi sëñ Touba jëkk a taawloo kon di sëriñ bi mu wuutu ko mat lim doon dis gann waaye wayef la boppam ba boo dikkee ci ëttu boppam doo ko xàmmee taalibe yi ci biir kër gi ci léppam dafa wàcce woon boppam ba ci mbindam bu ma sant di signé xuway dimul xaddiim lay signé xuway mul xaddiim tasxiir la ci ñi jàng naxwu xam nañ xuway di mooy lan loolu loolu lépp wàcce boppam la ngir delloo daraja yàlla delloo ab cër sëriñ Touba doon rek ab taalibe kooku nag su bisam ñëwee képp koo xam ne ak taalibe ngay dund wala mu ñor la wala nga bëgg sa taalibe yokk wala nekkul ci yow nga bëgg koo dund ñëwal wuyu ci bis bii bés bi bésub taalibe la di bésub sëriñ xaadim Modou Baara ak way juróom la Cheikh Mouhamadul Hafiz di sëriñ Modou Baara mu ngi war a am nag fukki fan ak benn ci weeru korite gi war a dajeeg ñaar fukki fan ci weeru janvier euh, ci weeru euh, avril le 20 avril di amee fii ci Touba Guy Mbind <coughs> ñu ci woo bokk yëpp nag ci tuuru sëti sëñ Baara yëpp ci tuuru njaboot gi yëpp ci tuuru Cheikh Mamadou Moustapha Serigne euh, Cheikh Baara wax na ko mi nga xam ne mooy borom ëtt bi di borom kër gi lu nu fiy def moom lañ koy defal ëtt bi day ëttum ndigal lu muy jëf mu di wala mu di ko wax ci ndigal rek la koy teg xam nañ ni ki yàlla teg ci boppu njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara gépp mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mi fi nekkal Cheikh Mouhamadou Lamine Baara te day daal di yóbbaale ñëpp kon na ko ñëpp bàyyi xel Serigne moodu nag li ko gën a ñor ci bis bi bokk na ci. jàng alquranul karim ci na mu gën a sell gën a bari toftal ci xasaayitu cheikhul xatim def ko addee sunu kilifa yooyu yi di sëriñ Modou Baara Mbakke ak sëriñ Xaadim Modou Baara Mbakke ak mbooleem jabootuk Cheikh Mamadou Lamine Baara ak mbooleem jabootu sëñ Tuubaa gépp ndax lu baax ñëpp xaj nañ ci te fii lu baax rek lañ fi woote te moo fi juddoo moo fi sax moom lañ fi xam liggéeyal sëñ Tuubaa rek yiw yi génn ci bés bi nag ak liñ fiy def ci aw yiw lépp yàlla na daj njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp yàlla daj jullit ñi jiitu ci yëpp ndax xaj na ci ndax yàlla yërmandeem dafa yaatu te fu mu ko bëgg àggale man na ko fa àggale ñi ngi saraxu ci dara jey Seex Mamadu Lamin Baara yii wi yaatu ba daj fépp ñi ngi ci soññi nag euh, maa ngi ci soññee ci sama turu bopp képp koo xam ne da nga yaakaar Seex Abdul Xadim Mbàkkeem sëñ Baara tamay sa kilifa bis bi maa ngi lay jox ndiigalul bu la fa kenn jiitu bu la fa kenn mujj bu la fa kenn man teyit na ngeen xam ne ndigal loolu bu ngeen ko jëfandikoo yéen ñi aju ci man na leen wóor ni leblewu leen da ngeen di fay bor fay gi bor nag dafa yàgg bor bi dafa yàgg cheikh mouhamadul hafiz di sëñ du Baara lu ko waroon ci sëñ ab Abdou Khadim def na ko bi mu ko gisatul sëriñ Xaadim du Baara mi mu fi bàyyi lu ko war ci sëñ Abdou Khadim def na ko bi mu ko gisatul sëriñ du Baara mii fi toog toogal fi sëñ moo du Baara toogal fi sëñ Xaadim du Baara lépp lu man ci lu rafet lu ko war ci digganteem ak kër sëñ Abdou Khadim du ma ni sax man ndax man benn taalibe laa ci kër sëñ Abdou Khadim waaye moom kër ga la jàpp buñ nee moo du Baara la jàpp loolu day day day day tuuti day gàtt ginnaaw waaye lépp lu aju ci kër sëñ Abdou Khadim muy donga ya muy liggéey ba muy kër ga muy njaboot gi lépp sëñ du Baara da ko téye la ko ca war lépp mu di ko def kon nag yéen bu ngeen ñëwee ci bisub sëñ moodu Baara bisub sëñ Xaadim Modou Baara na leen wóor ni dangeen ngeen di fay bor bor nag bu mun munta fay boo ko boo ko dee fay te munta mat da ngay da def loo am nga tàbbal ko ca tàbbal leen ci seenu ñaq tàbbal leen ci seenum xel seen xalaat seen doole ànd ko njaboot gi ci kër gi ci ci sama ndigal ci njaalbeen ba ca ba keroog sëñ Modou di ñaan ngeen soog a ànd ak taalibe yi yeewee ko képp ko aju ci sëñ Abdou Xaadim maa ngi lay jox ndigal loolu ñu ngi balu ñëpp àq baal ñëpp àq di ñaan sëñ Modou Baara ak njabootu sëñ moo du Baara gi yëpp ñu yàgg fi sunu borom téyal nu leen ba li seen way jur wa mébét ci ñoom lépp sunu borom àggale ko ci sagu góor ak jigéen ñu ngi ndokkeel bu baax tey bàyyi xel soxna Xadijatu Mbàkkeem sëñ moo du Baara buñ ko tuddee tudd nañ képp ku sëñ du Baara jaboote ci jigéen ndax bis bi seenu bés la bés bi seen yëf la sëñ du Baara da leen koo téyel ngeen am ngorog bàyyee ko lépp ni ko yowa loole itam nag sëñ Modou rafetlu na ko bokk yi rafetlu na ko na leen wóor ne na ngeen dollee dalal seen xel ci moom li ngeen ko dénk dana leen ko sàmmal dana dana ñoŋ te dara du ko róor wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi irahmaani irahim wa sallallahu wa sallam ala ashraf almursalin sayidina amin wa ala wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi ñuy teewlu noo ngi am mbégte ci yëkkati kàddu ci turu sunu kilifa sëriñ Modou Bara moom sëriñ Xaadim Modou Bara jëm ci woote bis boo xam ne bisub ñaan la di bisub fàttaliku ñaari boroomi cir ci lislaam ñaari borom yi ci yoonu murit muy sëriñ Modou Baara mi nga xam ne euh, mooy tawab Cheikh Mouhamadou Lamine Baara yàlla defit mu am tawféex e, jiitu ci sëti sëriñ Tuubaa mu mel ne lii sëriñ bi ñaanoon durriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu euh, bunt boobu ñaan gi sëriñ bi ñaanoon ci sët yi sunu borom tax wa taala tawféex jooju ci moom la njëkk a nangoo loola it nag mu daan ko dundam gépp boo ko jàngatee ci ni mu doon doxe ci xam-xam daa ko doxe ci ak yiw daa ko doxe ci bëgg lu baax daa ko doxe ci xett doomu aadama yi ak yëg leen ak jariñ leen eh, loo jël ci ak dundam rek loola nanguk ñaanuk Sëriñ Tuubaa googee da cay feeñ soo ca dollee nag cër bi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala defaloon na ko ko ci wilaaya gu mat sëkk goo xam ne e, ba tey jii fu mu mas a jaar rek bàyyi na fa jeexital yoo xam ne ñamu jamono na tolloon ñu ngi koy fàttaliku ba tey e, kon kooku wàccuwaay bu mag la am ci yoonu murit am ko ci lislaam ni ma ko waxee e, ñu di ko wooteel bis nag boo xam ne bisum ñaan la bis boobu nag mu ngi ko bokk ak ki nga xam ne moo ko njëkk wutu di Serigne Khadim Modou Bara di koo xam ne itam moom it ginnaaw bi ko yàlla defalee tawféex mu nekk euh, taw Cheikh Mouhamadul Hafiz di Serigne Modou Baara mi nga xam ne moo njëkk a nekk surtout euh, mooy taw Cheikh Mouhamadul Lamine Baara yàlla daf koo defoon muy koo xam ne itam dundam gépp daf koo tàggatoon ci tàmbali ba ci mujj jëmee ko ci liggéeyal Serigne Touba jëmee ko ci liggéeyal yoonu murit kooku itam moom ak wajuram woowu ñoom la ñuy boole bis bi muy bisub ñaan di bisub fàttaliku. Euh, seeni i jikko fàttaliku seen taxawaay bu am solo loolee di loo xamante ne bii it la cay jiitu ci njariñ mooy jëlee ci ay bind yoo xam ne képp ku ko teewlu da nga ci am loo mën a sukkandiku ngir defar ci sa diine defar ci sa àdduna euh, bis bi nag Serigne Modou Baara mi ngi ko teg ci ndigalul kilifaam yi nga xam ne euh, ñoo nekk ci kanamam te ñooñee ka ca jiitu gën ku caa jege mooy Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Euh, naka noonu sëriñ Amadou Mokhtar mi nga xam ne it mooy suñ sëriñ Modou Moustapha ñoom ñëpp nag ki na ci seen kanam di Cheikh Mouhamadul mun yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën koo dolli koo defal wér euh, sëriñ bi nee na ndigal li ci ñooñu la ko jëlee kon nag mu ngi ciy woo ñëpp. bis bi nag euh, bisu ñaan la bisu fàttaliku la kon dafa mel ne ñi nga xam ne ñoom la ci njëkk a soññi jiital leen ci mooy jànkati alxuraan yi ak jànkati xasaayid yi ñoom xam nañu bis bi nañu ko daan defe rek sëriñ baa ngi leen ciy soññ bu baax a baax a baax te itam mm, nee na lu mu gën a yaatu rek moo ko gënal lim bu ñu ci daan def mu ngi ñaan te loole mu ngi koy jaare ci daara yi kaamil ji nga xam ne day maanaam mbooloo mi nga xam ne ñoom la sëriñ Xaadim du baara sampoon ci këram gi ñu saxaloon fi alxemes ju nekk ñu dajee ci kër gi yendu faa jàng xasida yendu faa jàng alxuraan kon mbooloo moomu sëriñ bi nee na mi ngi leen ci soññ bu baax yeneen daara yi nga xam ne itam nag ñoom ñoo daan féetewoo liggéey boobu xam nañu bu baax seen bopp sëriñ bi nee na mi ngi leen ci soññ te tàmbali kaamil jàng ko ci bu ñu déggee woote bi rek e, te ko ba ca bis ba e, ñu ñu yendoo ko ba mbooloo ma yeewi ko sëriñ bi mi ngi fàttali bis bi nga xam ne xam na ne moom ak njabootu Cheikh moom leen Bara ñoo ko bokk Euh, kon mboolem ti kër yi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yi bàyyiwul kenn euh, sëriñ bi mi ngi leen di fàttali bis bi di leen ci woo ndax xam na ne bis bi moom taxawaay bi mu ci am rek ñoom ñëpp moom lañ ci am te it waxtu wu nekk nag ñu ngi koy wane. ñu ngi koy wane ci seen diggante ak sëriñ Modou Bara ñu ngi koy wane ci seen diggante ak sëriñ Xaadim Modou Bara bis bi itam ni ko sëriñ Modou Bara Abdou Xaadim waxe léegi rek ak euh, mi ngi koy ànd ak. Euh, njabootuk Serigne Modou Bara gi nga xam ne ñoo fi nekk di ay kilifaam ñu ngi koy ànd ak ñoom fas yéene ko dundal ci anam ga gën a mat gën a rafete noonu euh, ànd ko it nag ak euh, njabootuk Serigne Khadim Modou Bara gépp ak sëtti Serigne du Bara yëpp góor ñi ak jigéen ñi kon nag bis bi mi ngi ciy soññi ñëpp di ci gën a nag soññi Eh, ni ma ko waxee léegi rek ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye nag ñi mu bokkal Serigne Touba ñëpp rek eh, ndax bokk gi moom ne xam na ne benn la njabootu Serigne Touba moom ñëpp benn bopp rek lañu eh, loolu moom su bokk na ci tawféex yi sunu borom defal Serigne bi kon nag Serigne bi nee na képp koo xam ne ci njabootu Serigne bi nga bokk ak noo ci mën a bokke rek tàmbalee ko ci kër Serigne Modou Moussa ba ci kër kër Serigne Mourtala ak njaboot ki nga xam ne ñoo njabootu Serigne Touba gu jigéen gi. képp ku ci bokk ak noo ci mën a bokk rek sëriñ bi nee na mi ngi lay fàttali bis bi nga xam ne seen bisu mbokk la ngeen euh, ku ko ci man rek ñu ànd dundal ko noonu it ni la ci ni la koy fàttalee nag seexi sëriñ Tuubaa yëpp bàyyiwul kenn euh, rawatina nag seex yi nga xam ne ñoo aju ci kër seex Mamadou Lamine Baara ndax li waral lool it mooy yëg na ne bis bi ñëpp ko bokk képp koo xam ne rek euh, ci njabootu sëriñ Tuubaa nga bokk ak noo ci bokkee wala nga yaakaar sëriñ bi ak foo ko yaakaaree rek mi ngi la ci soññ mi ngi ci soññ it mbooleem nag ku dëkk Sénégal tey euh, wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bàyyiwul kenn kon nag woote bi noonu la ci sëriñ bi jubloo mu gën a yaatu nu àndandoo dundal bis bi ndax bisub njariñ la bisub ñaan la bisub fàttaliku la te itam jàpp na ne bis la boo xamante ne bii bisub yiw la te yiw woowu yeneen na ko ñëpp kon nag mu ngi ciy soññ ñëpp euh, di soññ bu baax nag daayira yi ni nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi rek ñi ci daan taxaw kenn ku ne fa nga ci daan taxawee xam nga ko euh, nga waajal ko bu baax a baax a baax bu ñu ñëwee ñu taxawu bis bi ba lépp jàkk di ko fàttali bu baax it bitim réew ñoom itam la cee seen cër ak seen wàll ci taxawaay bañ ci daan am xam nañu ko bu baax mu njabootu sëñ Modou Bara gi nekk ci ci ci biti sëriñ baa ngi leen di fàttali bis bi di leen ko yëgal euh, fas yéene ko ànd ak yéen kon nag sëriñ bi ci tënk rek mi ngi soññ ñëpp bàyyiwul kenn di sant ñëpp di gërëm ñëpp bis bi ni ñu ko waxee rek mi ngi war a tolloo ak gaaw ñaar fukki fan ci weeru avril wi nga xam ne moom la ñu nekk wara a tombe ak fukki fan ak benn ci weeru kore wi nga xam ne moom la ñu dëgmal incha allahu taala kon nag sëriñ bi mi ngi ñaan ñëpp ñëw ci jàmm ñu dundal bis bi ci jàmm delluwaat ci jàmm am ci taw tawféexi sëriñ Touba am ci taw tawféexi sunu borom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aw Cheikh Mouhamed Lamine Baara Mbacke ba ak doom ju baax ji Serigne Khadim Modou Baara kañ lay doon fukki fan ak benn ci aw Korité dëppoog le 20 di bisub samedi di le 20 avril sëñ Modou Baara nee na mi ciy woo ñëpp bàyyiwul kenn di ko soññee ak a yëgal waa ay Ahibahil Khadim ak waa daayira Wilaya waaye tamit kenn ku ne xam na ni njabootug Serigne Modou gay jëm mooy kenn jiitu lañ ci bis bi ak mboolem njabootug waa kër Serigne Ñaan Diop gépp ñu ngi leen ciy woo kon sëriñ bi daal nee na mi ngi ci woo ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñeñ ñenn di ci soññi tamit mboolem daayira daayira bi nga xamante ni mooy daayira sët sëriñ Modou Bara rawatina bi conférence bi nga xam ne dañ koy amal ci bis bi ñu am ci taxawaay bu am solo kon mbokk yi bis baa ngi noonu di bisub sëriñ Modou Bara ak sëriñ Xaadim Modou Bara di ñaan képp ku fa teew yàlla na yàlla suñu borom bi faj tay aaju ci barke sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi